gërëm maam góor waaw maa ngi leen di nuyu di nuyu képp koo xam ni yaa ngi xool Sénégal 7 mhm. di ci jiital ci nuyu bi nag suma xarit Pape Ngagne mhm. sama frère la parce que euh, du ma ni ci plateau yëpp lay dem mhm. boo xoolee depuis presque deux ans su may wax dama am sama site fa laay waxee ku bëgg reprendre nga reprendre ku bëgg reprendre tamit garaawul mais Pape Ngagne dafa nekk nit koo xam ni dama ko naw dafa nekk ci milieu bi nekk un journaliste nekk nit ku am jom di ñafe créer Sénégal set jël ay jeunes sénégalais am ci ñoom confiance jox leen ko ñu koy doxal. donc c'est quelqu'un boo xam ni dañ ko war a encourager ci ay kàddu mais dañ ko war a encourager ci jëf. Mhm. moo tax bi ma pend woowee ma ni mun naa gantu ñëpp ba mu des ku mel ni ngañ il fallait que ma ñëw. Mhm. ma ñëw léegi nag nga am foo tàmbalee muy da nga wax sëñ Babacar si mhm. ni dañ ko laal gis nga ki ko def. Mhm. defu ko sëñ Babacar mhm. defu ko taalibe sëriñ Babacar yi mhm. boppam la ko def xam nga soo gisee ñun à chaque fois ñuy génn di xeex yenn affaires yi bu ñu si laajee ñu wax ci luñ ci xalaat nit ñu yaakaar ne dañu contre ñii wala dañu contre ñële mooy gis nga Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ni ay kilifa dañ fi nekk mun nekk ay kilifa diine ak ay kilifa aada muy ñi nga xam ni dañu nekk au pouvoir ak ñi nekk opposition soo nekkee ci dëkk chaque fois booy wax say kàddu dafa war a nekk ay kaddu yoo xam ni. Mhm. xale bu ko dégg war ci mën a jël leçon. Mhm. war ci jël lu bëri. mais bu fekkee ni chaque fois bu nit ñi di wax ci agression la ñuy wax ci agressivité la ñuy wax. Mhm. nit ñi dañuy dem ba dañuy agressif. te sax duñ ko yëg. comprendre la ku toll ni Serigne kër si ci àddina kenn mosul xalaat ni dañ profané photom donc nag ki ko def boppam la ko def te ba lay ren di déwén da koy gis. est-ce la mm-hmm. dina am ay nit yoo xam ne tamit ñoo nekk ci ginnaaw loolu di prôné lu mel noonu di prôné di prôné euh, ay taal ay yàq ay affaire yu mel noonu dañuy saxaar rek mais duñu tàkk parce que mënuñu tey Sénégal dëkk la boo xam ne c'est un pays de paix mm-hmm. loo ko mën a wax sénégalais yi mun nañ wax ni du ñëpp quoi ñii ay hypocrite lañ ñii soxor nañ ñii ñaan nañ ñii tout tout mais en grosso modo le sénégalais dafa nekk nit koo xam ne dafa bëgg paix sociale am bëgg mm-hmm. jàmm donc nag képp ku aspiré nekk ci dëkk bi bëgg ko doxal wala bëgg fi doxal dara faaw que say communication sa lépp surtout tamit yéen ñi nga xam ne sax yéen invité yéen a gars yi mm. waxtaan ak ñoom ci loo xam ni jàmm la mm-hmm. parce que yenn communication yi moom moo indi loolu yëpp mm-hmm. donc nag ñoo ngi ñaan yàlla mm-hmm. lii nga xam ni moom moo am mu bañ a amati et puis que tamit ñun comme ni nga ko waxee ci commencement bi dañoo am ay valeur te valeur yooyu sëñ Touba def ci bokk maam Alaaji Malick def ci bokk maam Limaamu Laay def ci bokk tey bi nekk fi ñëw rek sa xel dem ci maam Limaamu Laay mhm. est-ce que la donc nag tey yooyu dafa nekk yoo xam ne dañ koy ñaawlu quoi franchement maam Ngor li ñu ñaawlu ba fu ñaawlu yem daal yi ñu bëggoon a waxtaanee sax dafa bëri sujet yi dafa bëri tellement mhm. te temps bi duñu ko may waaye dinañu juste profité mhm. wax xam naa dina bref waaye dinañu laal ci sujet bu ne nga joxe ci sa sa sa xalaat démb ñuy wax ci mbirum Covid euh, troisième vague ñu gis ñuy wax ci mbirum vaccin démb Ousmane Sonko génn def sortie euh, def sortie bu yàgg sax bi nga xam ne peut-être dem na ba mat ay une heure de temps comme à l'accoutumée nu mu tàmm di ko defee sax moom mais gis ne dafa ne dafa jox ay solution yi nga xamante ne bu ci état bi tegee tànkam euh, dinañu mën a sax daan Covid bi laay wax. Mhm. Euh, noo gisee sorti Ousmane bi démb. waaw xam nga man sénégalais la au vrai sens du man. Euh, Ousmane Sonko dama koy wax tous les jours ñu bëri dañ jàpp ni sax man dama ko contre. Mm-hmm. mais man contre ma ko sa personne ne m'intéresse mais boo xoolee man maa ngi ñaari vidéo yoo xam ni il même pas longtemps. Mm-hmm. il y mois ci ginnaaw génn na di critiquer vaccin bi. di ci wax naan suñu njiit yi dañoo ñàkk fayda ak mais euh, yàlla baax na bi nga xamee ni seen eh, africains yi comprendre bañ jël vaccin bi. Mm-hmm. dem mu ñëw taxaw ni vaccin bi baax na. xam nga quelqu'un qui aspire diriger un pays. da nga war a constant. Mm-hmm. si say wax soo contre benn affaire ñu xam ne da ko contre. Mm-hmm. soo ko contrôle tamit ñu xam ne contrôle ko. beneen bi ci topp mooy loo taxaw tey jii ku mu neex nga nekk opposition ba mu neex la. Mm-hmm. nga dem pouvoir. comme ni nit mun a nekkee pouvoir ba mu ba mu yàgg. dem opposition nga dem opposition. mais tey loo taxaw ay kilifa taxaw ku mel ni un président de la république yow nga aspirer diriger un pays. toog moom fi mu toog. ngay taxaw mu waxtaan ak nit ñi ñun dañu ànd ko mburoog so nga taxaw naan yu ñàkk fayda yooyu te mm-hmm. pourtant yow ñu ngi la diin lu ñàkk fayda mm-hmm. ñàkk fayda weesuwul nga nekk quelqu'un qui aspire diriger un pays mm-hmm. ab xale bu jigéen ñëw jiiñ la viol non est-ce que du non soit jiiñ xam nga neewuñu moom moo def xam nga man déggoo xam nga jiiñ xam nga yow xaw ma la xaw ma mosuñu gisee mais jàpp naa ni kenn du la jiiñ naan sàngara parce que doo fréquenté fu ñu naane sàngara maanaam ku ñuy jiiñ dama sa fu ñuy naane sàngara tey jii boo nekkee quelqu'un qui aspire diriger un pays tey Ousmane Sonko li ko war a gën a ñor instant bi ci àddina man bu ma doon moom si j'étais à sa place. Mhm. mooy sama diggante ak Adji Sarr ma leeral ko ba mu leer nañ. Mhm. ba nit ñi xam ni violé wu ko. waaye taxaw rek naan mag Sall dañ ma ko. mais loolu fi mu toll nii non mhm. xam nga dangeen ma poser question. dëgg la. man dama damay wax lu leer. new ma moo ko def. xam ma waxuma loolu. fii laa nekk internet bi ñëpp ak may seetaan mhm. néew moom moom moo violé Adji Sarr waxuma mhm. loolu mhm. mais dañ ko invité mu ne dem na fa dem naa fa boo demee fa ñuy naane sàngara bu ñëwee da naan sàngara kenn du la ko weddil soyons logique léegi nag moom tey corona dafa am ci àddina bi mu génn a contre vaccin bi dem ba ci biir mu ñëw ni vaccin bi baax na ba man sax am naa ci sama ñooñ ñoo xam ne dee nañ ci gis nga réew bi fu mu toll nii ni toll nii dafa toll foo xam ni boo xoolee barki démb armée lu Pikine yi gars yi dañ ni dans trois mois day fees mhm. dem nañ laaj gardien ñu ne fu ñu daan suule am ay huit euh, euh, morts par jour léegi ñu ngi ci ay cent cinquante ay cent soixante bu yokk bi sax pare Sénégal yaa ngi dee comme ay weñ mhm. tey jii dañu temps politique la nit ñi amul temps bi nit ñi war a am mooy ñu a trouver consensus. waxtaan joxe ay propositions yu bi. mais taxaw di xaste. naan vaccin bi baax na bu subaa nga ni vaccin bi baaxul. bu subaa ñu ne xam nga lan la. c'est que man dama lay wax Ousmane Sonko dama la koy encore une fois j'ai rien contre lui. moom son discours est agressif. d'accord moom il faut mu am ñi koy ñi koy kii ñu nu mu tudd ñi koy conseillé. ñuy waxtaan ak moom. man loolu la moo tax man su waxee mais yow ba Covid bi commencé ba léegi da ngaa mës a dégg ñu la Ousmane Sonko maye benn. bitéelu gel wala maye na benn. mais xëy na mu koy def ci suuf te kenn. non non non soit non dama lay wax fii nit ñi dañuy politique bu fekkee ne li ngay taxaw di weer nit ñi ku def ñombe nga ne def na ñombe da ngay génn li ngay def ci lu baax nga wane ko. Mhm. soyez logique fii gis nañ fi ay journalistes ay animateurs yoo xam ni. seen salaire sax demeewul noonu. Mm-hmm. te benn cent cinquante mille wala deux cent mille bi ñu leen di fay. Mm-hmm. dem nañ jënd ci ay gel ay masque dem maye ko. Mm-hmm. Ousmane Sonko kenn mësu ko gis mu maye benn masque ci rëkk bi wala benn casque kenn gisu ko mu def dara à part agresser nit ñi xaste wax lu ñaaw yokk kii xar mi karaw genre yu mel noonu man dama lay wax contre ma ko mais li muy doxale laa contre. parce que man dama bëgg nit su fekkee ni da nga quelqu'un qui aspire diriger p nga taxaw xale bu jigéen bu am ñaar fukki at te yow nga am doom am jabar am doom mm-hmm. xaw ma doomam ñaataat la am amee mm-hmm. bu amee doom bu jigéen mm-hmm. tey ji bu doomam jigéen ñëwoon dem jiiñ benn waay ni def ko violé même bu fekkee ni wóoru ko ndax waajee ko def doo am lu ko neex d'accord mais maam donc li li mu war a def pour wàcce ñi nga xam ne ñoo am ci moom confiance gëm projet mooy mu fexe ba leeral digganteem aji son aji aji saar moo gën a leeral affaire je pense que li nga wax foofu leer na mais maam